asalaamaaleykum sama guy yi nuyu naa leen tey nag maa ngi ñew ak yeen di um, sama seafood platter bu ma day defer bu saf sap sax dina ci def sama ay lobsters ay shrimp ay mussels dina ci def baby clams pañ kan heñ yi pour uh, li may blend la soble sweet mini peppers green bell pepper uh, limon dinaa soxla tamit green onions just one bunch corn potatoes yi yëpp day dem ci seafood platter bi so yéen daal toog leen xaar ma ñëw defanteeg yu baax yi saf sàpp lay def nag forox baxal pompiteer ak corn bi on the side léegi sama affaire yi laa blend nii ñoom bell peppers jalapeno kaani xeeñ soble bi yooyu laa blend nii léegi maa ngi def sama limon limon bu doy nag ngeen di def maa ngi add sama paprika nga def about tablespoon and half of paprika def saf safal Maggi cubes xorom def euh, kuddu dijon mostard bi yëngal ko daf ci am solo nag sama gaay gis ngeen ñeex bi nag amul benn ndox lépp limoo la rek ngeen ko ñu liggéey ba tey si saf-safali def naa sama kuddu poobar ñëw def sama favorite sauce Worcestershire sauce toqal ci rek yëngal bàyyi nag muy bax tuuti rek on a medium heat low euh, steam suñu affaire yaa ngi bax fi on the side kon be pombiteer bi gis ngeen affaire léegi nañ ñëw defar nag suñ def ci suñ seafood yi yëpp lañ ji rek jóor ko ci jàmb ko ci daal yëngal mu saf forox xeeñ lu neex te neex bu leen fàtte nag seafood moom jarul togg bi yàgg togg ko tuuti rek dupp mën nga ko dupp tuuti rek mu steam rek fay rek sotti soo ko bu ko bàyyi sax si cin li gis ngeen ni muy demee daal ñu yokk suñ tamarind powder just a little not the whole packet though daf daxaar daxaar ba about half rek pare na am ngi waaj a pare daf sotti suñu koon ak pompiteer this is the last step moom moom ngay mujjee def rek yëngal fay suñ pulo seafood plaada pare na déggal na ma ñeex wi ñeex beeg taqaar beeg affaire yi saf sàppe yépp jëmb nañ gis ngeen dim safee xool bi rek wan na leen affaire ci daal du foo waaw kay xanaa kontaan ngeen suñ seafood plat da pare na de jërë ngeen jëf sama gaay si seetaan bi jërë ngeen jëf amuma seen fay di leen wax ngeen bu leen fàttee subscribe si suma channel bi hit the like button the notification button share in video si as much as you guys can jërë ngeen jëf waaye ama seen fay Hadija Ndoy nak yow bëgg fruit de mer yow daal laa invité si plat bi dégg yow daal invité naa la di la jox sa palaat jërë ngeen jëf sama gaay ba next time